Bienvenue sur Salam Vision. الرحمن يا رحيم ربي بما يسر الأسان خد فجعا بجاي أفضل لمن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 rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen siyaara euh, yéen ñi nga xam ne yéen suivre seen émission bu mag bi di faj sa jàngoor noo ngi nuyu ñëpp di leen siyaara tey nag dañoo am mbégte dalal kilifa gu mag goo xam ni yaakaar naa ni kenn dootul ko présenté réew mi ndax bu ma nee Serigne Mara Niass mu Serigne Saliou rek doy na yaakaar naa ni ubbatul kenn kon balaa may def lenn dama koy jox mu nuyoo bu nuyoo ba pare ñu a ñëw ci waxtaan wi tey nag dama indi ay question yoo xam ni du samay wax wax jaam yàlla yi nga xam ne ñoo lay suivre mhm. soppe yi nga xam ne lalu geeg lu ko waraloon mhm. incha allahu rabbi ginnaaw boo ñëwee nuyoo ba pare dinaa ñëw ci loolu mhm. sëriñ Mara ñoo ngi lay nuyu waaw jërëjëf Yaara maa ngi lay fay nuyoo di la siyaar bu baax di nuyu biir réew ak biti réew euh, di jël nuyoo beeg siyaar bi di ci jiital kilifay diina yëpp ak kilifay aada yi euh, di nuyu borom réew mi bu baax a baax a baax a baax di nuyu biir réew ak biti réew maa ngi lay fay nuyoo di mhm. fay ñi nga xam ne mhm. ñoo ñuy siifur saa su ne ci woote geeg nemmeeku geeg soññee geeg yëpp ñu ngi leen di dégg di leen wax ne dañoo tëj woon di liggéey rek la jërëjëf yaa waaw jërëjëf Serigne Mara sama question bu njëkk li muy doon mooy lan moo waral maara tëju rek naqaree génn maanaam ken mënu gis moom wala waxuma dégg moom dama ko waxaale wu ma ko moom mhm. waaw li may wax nag du samay question nit ñee ma koy yónnee ma la koy wax waaw jërëjëf xam nga nag euh, askan wi moom bu ah. fekkee seen i yitte dëgg la Euh, da nga cee nekk. Mhm. doo man bis bu set rek ngay topp génn di génn rek. dafa jar tëju. dëgg la waaw jamono ji kenn ku ne xam ne ne tooguñu woon. Mhm. ñu ngi woon ci liggéey yi. ndeysaan euh, askan wi rek moo ñu yitteel. dëgg te moo ñu soxal ak réew mi. dëgg la euh, moo tax ñu xawoon na waaye maa ngi jégalu ñëpp ci jafe jot geek. ndeysaan maa ngi koy jégalu. dëgg la di leen baalu àq. man moom ñi ma yàlla booleel. Euh, même bu dul ñaan gi samay xarit lañ. waaw loolu am man yàlla mën a too loolu. moo tax maa ngi siyaar ñëpp. dëgg la di leen di leen béggee. dëgg la waaw di leen wax nag ñëw nañ nag ak ak ak yeneeni mbir. <laughs> dégg la jërëjëf Diagne. yow yaay seen problème. <laughs> ndeysaan jërëjëf Serigne Mara ci nuyoo bu am solo boobu kàddu yooyu. Mm-hmm. Euh, bëggoon naa xam lan mooy secret Serigne Mara. Mm-hmm. ba boo ko déggee. Mm-hmm. mbaa nga gis ko sa aajo faju waaye pour nga dégg ko nag wala nga gis ko loolu lu jafe la. waaw loolu nag loolu nag <laughs> jërëjëf doguma la loolu nag Serigne Saliou la Ah? man yaaram dama ne hmm. bi may am juróom benn at lañ ma jox Serigne Saliou sama waxe daaw mooy sama waxe ren dëgg de ndax Serigne Saliou bi ñu nekk ci daara ji kilifa yaa ngi may seetaan dañu daan wax naan ñu mhm. bu leen di waxantu ndax lu ngeen wax mu am te Serigne Saliou ba mu ñu koy wax amul woon jot <laughs> toogul woon it di wax dëgg man bokkuma ak gaa yi nekk fii ne dañuy ñaan ay sëriñ lan dëgg man dama am xaas ah, man Serigne Saliou ma dimbali te moo ma teddal man bu man jëlee big ak fooy di ñaan mhm. wala ma tëju jóg ñaan mhm. ma wax mu am moo gën a yomb foofu may nekk di la bind la ko xoso xoso <laughs> man dama am dimbal ci Serigne Saliou loolu moo tax ñun bi ñu nekk ci daara ji mhm. ñun dañoo liggéeyal sëñ Touba te liggéeyal waaju baax ak jataayoog waaju baax wala jataayoog ku jataayoog waaju baax mm-hmm. loolu rek ku ne xam ne ne tawféex la man bokk man man du ma xeeb ma kenn de gars yi am nañ am nañu mbir dëgg la yooyu yëpp am na waaye man dama am dimbal di ko santaat Serigne Saliou man Serigne Saliou ma dimbale ba ku ñëw ci man sa aajo faju loolu moom mooy li wér Cheikh Basirou da doon reetaan ne lu tax may faral di wax naan du ma ñaanal gone mm-hmm. ah man li ne ci man waaw waaye kuy nettali waxi mag di mag waay <laughs> jërëjëf Diagne li ma gën a neex ci ma wax ji uh-huh. mooy nga ni Serigne Saliou moo ne ñu uh-huh. bu di waxantu ndax lu ngeen wax mu am uh-huh. li ko waral mooy dafa am benn waaye dafa ma woo téléphone ma wuyu ko mu ne ma wallahi wa rabbul kaaba Serigne Mara dama koo dégg téléphone rek am liggéey am liggéey te yàgg naa Europe musuma am liggéey waaw barke borom Touba waaw dama koo dégg téléphone rek loolu loolu mu wax ma la may wax rek ma am liggéey te defalu ma dara mu ne ma nag weer yu may njëkk a fayeeku moom ak wa ca topp dama koy dugalal Serigne Mara kon loolu day firndeel mhm. euh, waxi waxi Serigne Saliou jooju dëgg la waaye yow juróom benni at yow bi koy mhm. am ñu yóbbule Serigne bi yow kon mhm. yow de xanaa booba de ko dara moom ah, defaroo taqoo booba sëñ bi dafa taqoo woon ak ñun ndeysaan ñoo daan fanaanoog moom ak jëmmam ju tedd ja ndeysaan ndeysaan ñun ñàkk nañ man mënu maa wax ci Serigne Saliou ndax lan dëgg la man moo émission bi yàqu waaw man man waaw nañ nañ jàll ci yeneen nañ jàll ci yeneen nañ jàll ci yeneen yàlla <laughs> baax na nañ jàll ci yeneen jërëjëf Serigne Mara waaw <laughs> ah, bëggoon naa nag nga ñëwal ñu ci euh, Kanzul Maal bi nga xam ni mhm. da nga ko indil àddina waaw ah, muy loo xam ni uh-huh. euh, xaalis taxul nga am ko mhm. loolu moom mooy li wér mhm. mu bëggoon nga ñëwal ci Kanzul Maal ak njariñ yi waaw waaw jërëjëf loolu mooy li nga xam ne nit ku ko am sa coono jeex na Kënzul Maal. Mhm. ak Kënzul Kunóos. Kënzul Kunóos. jombul di nga ñëw ci. Kënzul dinañ ci ñëw nañ ñëw ci Kënzul Maal. Kënzul bi nga xam ne moo jiitu te mooy nday ji seex. Mhm. dafa am loo xam ne dañ koy liggéeyee ci jaaro Kënzul Maal. jaaro jaaro bi bu ma la ko mayee. Mhm. da doon jaaro bi man xam naa ne ay milliards mayewu ko ay millions mayewu ko. dëgg la waaw kon nag man dama naan maye man lu ma ci laaj nit dama naan dama koy maye. ndeysaan <laughs> waxin la waaye waxuma dama koy maye classe mbayeen gi ñu naan may ma ci jaaro bi. ci waaw bëgg naa <laughs> jaaro bi dafa nekk loo xam ne kenn amul njëgam. Mhm. moo tax dañuy xool li nga xam ne mooy sart yi ñu def ko ci ku ne am ko. dëgg la ba ma tekkiloo nit ñi jaaro bi mhm. booba Kënzul Maal ñëwagul. dama ne woon tekki leen jaaro yi te déglu ma. te déglu ma déglu ndax sëñ Alpha woon naa la jaaro dañ koy seet ah jaaro dañ koy seet. jaaro dañ koy seet ni ñuy seetee sëy peru jaaro day nësaxal kër am na ñoo xam ne keroog bañ takkee jaaro boobu la seen mbir yàqu. am na sëriñ su mag nga leen di dégg wala kilifa yu mag keroog dañoo am jaaro. Mm-hmm. seeni mbir fay. li may bañ a réew mi moo tax ma jël lépp sol ko ci Kanzul Maal <laughs> kënsul kunoos bi hmm. moom damaa mujj def ko produit boo xam ne da koy koy diwoo rek say mbir di baax ah kënsul kunoos diw la moom diw la moom moom du tàkkadu dara ak diw guñ liggéey ak karité yenn mbir yi la ah. kënsul kunoos bi mais lu wér te wóor mooy ndeysaan nit ñi damaa bëgg ñu gën a teey hmm. ci ñaan hmm. ak ñaanlu ndeysaan surtout surtout jamono jii maa ngi def alerte bu am solo dëgg la nit ñi nan xàmmee waaye ki fi ñi maanaam kuy ñaan muy nangu nañ ko xam dëgg la nañ ko xam man waxuma man aw man du sama jafe man aw moo jaf man sëñ Saliou dimbal na ma mais dama ne mhm. nit ñi mhm. dafa mel ni dañoo soxla woo ku leen di nax waaw loolu de lan moo tax sëriñ Saliou defar lim defar mhm. teg ko fi ku ne naan lan <laughs> gis nga sëriñ bi dafa am lu ñu daan wax biñ fi nekkee dan daan toog jékki-jékki mun a gees nañu sàllaaw de man waxi Serigne Saliou lay nettali du ma ne kenn moo ne man maa ko fekkee sàllaaw de nit a ngi ñee ku mu raw ku mu raw ku mu raw nee na bu leen di waxantu bu ngeen di waxantu rek may defantu <laughs> xam nga ñun man man am na ñu mu nag ñu may toog ñuy gis di wax naan nekkoon naa ci daara ji ne gis nga mhm. Serigne Saliou kum yar boo ne ko jàkk boo amee ndimbal da ngay xam ne kii Serigne Saliou woo ko dimbale ana yaa wax sa biir wax léegi ana ki may dégg am liggéey <laughs> ana ki may jëflanteel moo am liggéey damay liggéey ci lépp bu ma nee damay liggéey ci lépp mooy ku aajoom nar a faju mhm. bam na toq sama nopp mhm. wallaay xasim sa mbir day faju ci lu dul sikk sàkka man awma lu may dox awma lu may nëbbatu mhm. mais nit ñi nañ tey ci yi ñuy sangoo ak yi ñuy naan ak yi ñuy takk nit ki mënulaa ñaanal te xamul yaay kan waxal sa aajo bu déggee sama nopp ma faj ko man naa ne de waaye damaa am wax yoo xam ne ak ma gisin gisin woo xam ne waaw am na yoo xam ne dama koy gis waaye damay xam ne bërëb bee dara nekku fo dara yàlla nekku fo dëgg la dama koy xool ñuy nekk yi welelele di wax rek naan ñun Serigne Saliou woo ñu dimbali. ndax jamono yi ku ne gis mu génn rek yor yi kayitam. ah nit ñi di ko woy si. waaw muy bind di joxe. waaw muy bind joxe. te résultat moom du am. résultat du am. xam nga lu tax du am. lu waral loolu. sëñ bi ndimbal lan mooy solution ci loolu. am na nag ku ma seetaan muy ne moom gis na ñuy def ay xaatim yu dammoo xaatim yu dagg. mu mu salaam mu rabba xam nga. <laughs> waaw léeg-léeg nga def xaatim ba mat sëkk dara manqué wul. waaw nga jox ko nit te ñaan nga du nangu. dëgg la aajo loolu faju ko dëgg la aajo mhm. man ngaa bind liñ na la diw bu ko duggee du dem kaso mhm. nga bindal ko ko mu dem kaso pourtant xaatim ba dammul de sëñ bi nañ yeewu ñaan leneen la aajo yi daal fi ne boo bëggee dégg-dëgg waaw yi tey jaam ñi mm. ak ñaan muy nangu mm-hmm. man Serigne Saliou dimbale na ma dama ne le woon nag mm-hmm. bu ma demee ba li nekk ci man mm-hmm. dara nekkatul ci man mënumaa faj aajo damay woote conférence de presse na leen bu kenn ñëwati ci man ndax mënatumaa ñaanal kenn li ne woon ci man <laughs> dem waaye man dimbalul Serigne Saliou laa loo xam ne ci jamono jamono ji dama ko na ko ciix téye di ñaan muy nangu ku aajoom nër ta faju doo ma jot ba may gis nag loolu mooy lu wér looloo tax seen baara naqaree jot eh, jël loolu kepp la nekk ci liggéey bi tëju ndeysaan di santaat kilifa yi bu baax tey dama ne woon dama fi ñëw ngir ñaar mm-hmm. ñëw nga ci waaw ngir nawet bi <laughs> ak ngir ndaw ñi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi premier janvier laa génnoon na leen kilifa yu bari dinañ faatu mag ñu bari danañ faatu ren bëggoon naa nga ñëw ci loolu ndax li li waral mooy man li ma jaaxal mooy Serigne Mara. ak sëy yu bari dinañ tas. waaw waaw waaw. waaye nag xéewal day am ci réew mi. waaw waaw nan la ñuy def ba jot ci xéewal googu. ak ndaw ñi nga xam ne fokk jafe-jafe am ren ay sën yu bari dañoo dañuy faatu. ci anam déggoon naa nga ne xaalis bu bari dina génn waaye day nax saay. ba pare newoon nga tamit saraxu réew mi lu weex la. waaw yooyu yëpp ko ba a gis. saraxu waaw saraxu nga ko di nga ko gis. xam nga ba pare. Mm-hmm. Macky génne joxe ceeb bu bari sa man daal affaire yu jaaxal. xam nga ba ma génnee na saraxu at mi lu weex la. waaw waxuma na kenn ku ne bërëx bërëxi man xamoon naa ne ceeb bu bari dana génn lu weex lu man xam naa man euh, duma fii bañ fi toogee yëf yi lëndëm mhm. man bu ma génnee rek génn jot na man du wax ay waxi kasaw kasaw waxi picc dama na leen askan wi sën yi mhm. ñi nga xam ne toll nañ ci fanweeri at jëm ñeen fukk mhm. nañ def ndànk ren accident yeneen dina xew te géej gi dina yëngu te lii maa la ko wax bindal nga denc accident yeneen dina xew ci tali bi te géej gi dina yëngu loolu mooy lu wér li wér te wóor tamit beneen affaire dina am waaw am na benn politicien bu mag. Eh? danaa tudd turam. bu bëggee jël réew mi dëgg fokk mu dugg kaso. kooku kana. waaw danaa tudd tur Ousmane Sonko la tudd. Eh? waaw bu bëggee jël réew mi fokk mu dugg kaso. waaw nga baal ma man xaw ma ko xaw ma ko ko xam. Ousmane Sonko. waaw bu bëggee jël réew mi dugg dëgg dëgg foo mu dugg kaso dina dugg ci kaso bi génn. bu boobaa lu mu wax rek dana saf ñëpp waaye bu dul loolu danañ gori tànkam. te bu mu nax boppam bu nax nit ñi ànduma ak moom xaw ma ku ànd amul weneen yoon mu war a jaar waaw loolu bu déggantee yow di nga ko di ko ci jàppale jàmm ak salaam la rek ah te yàlla sax xarit ba lay musibaal waaw ngir dara jaal ko baa mu doon kami baal <laughs> ànduma ak kenn ndax ah. Macky Sall bi ma ko gisee bi ma ko gisee mu toog mm-hmm. mu jël réew mi mm-hmm. ci njàppandalu jabaram mm-hmm. damaa génn wax ko fépp laa ko wax ak ci nga di nga di ku yàlla bind manta tee Macky Sall jëlaat réew mi te man àndu ma man man bu ma nee àndu man xam nga ku ma àndal ah. ki gëm réew mi ak ki ànd ak réew mi waaw ah, dëgg la waaye nag yii di xaw ci réew mi dafa jar ñu koy wax ah, ndax ëllëg a tax ñu bari dañ may déglu bu ma waxee pare ñu génn defaat wax ji mais man man man man nday ji seex laa njaaxaanaay laay tëdde samay wax ku ne man nga cee jëlee njariñ man ke damay gis ay sëriñ sax waaw ñoom dañuy déglu say waxtaan nga waxtaan ba pare mhm. ñu jël ci loolu inspiré wu ci mhm. du gaat pour wax ci loolu yow léegi loolu nan la lay def ak yow maara lan moo tax doo ànd ak sëriñ si buñ awee fii yow nga aw fee <laughs> euh, li ma a kii mooy coupe d'Afrique euh. ñëw uh-huh. la jëm si uh-huh. nga génn ne uh-huh. coupe bi dafi ñëw léegi nga waxee loolu bañ dem final yow waaw noo def uh, waaw bi ma ne xam nga euh, loolu maa ko def biñ ne ñaari max lañ waroon a fubal mën na leen bii ñuy fubal pour ñu dem final mën na leen bii day tax suuf waaye coupe bi du ñëw booba kenn xamul lu ñu ko gàñaloo dafa am lu am mhm. nit ñi wallahi alxasim nañu wax nit ñi dëgg am na ñoo xam ne dañuy seet dañ may seetaan mhm. te lépp lu ñu wax rek mhm. jaral naa leen ñu dem teg seen i kër te dañ may déglu te bëgguma leen a fen loo man lépp lu may wax yàlla nag mën naa def mbir mu weex tàll diggante bu gàtt mu def ko lu ñuul Ah, suñu borom dafa bëri dafa bëri melokaan fi ak jaxasoo woo nag ak am na loo xam ne bëgguma ko wax ci kaw am na loo xam ne fii ak nekkul ci yow mhm. pour ngay jël yenn sañ-sañ yi ak yenn dogali yi mhm. na tey loolu baaxul man du ma wax lu ma xamul du ma wax lu ma gëmul waaye ñaan muy nangu dama ne la mhm. man maa koy def te ko yàlla dindi du man man sëriñ saali woo ma dimbali sëñ bi <laughs> man man bokku maa man man daal sant naa li wérta wóor mooy nañ defaat ndànk sën sëy yu bari nee naa la dina tas nit ñi danañ sonn lool waaye lu dugg ci ñoom day génnaat ngelaw lay taxawee at mi moo demee noonu te sarax bi nee naa lu weex la te juguma di ko wax nee naa leen géej gi dana yëngu hmm? man maa ko wax beneen bi ci tege mooy hmm. ma wëlbatiku ci politiciens yi nga ñëw waaw mën na leen nañ coow yëfi dina dal xam nga dama fee defoon émission mujj mën na leen président bii fi nekk damaa gis beneen màndaam mu toog ah. mu jaaxal ñu bari waaw dama koo gis xam nga lu tax waaw réew mi. président bu fi mas a jaar ci àdduna. Mhm. président bii fi toog. moom la fi yàlla. Mhm. gën a àndal ci ak palin. lu doy waar nag laay wax. ci ak palin. waaw ci ay sens. ñi jàllagoon laa wax de yëf yi du sens mérite la léeg nga gis dongo boo xam ne day ñëw juróomi at mokkal alxuraan kii def fi dix ans du mokkal. loolu dëgg nguur gi damaa gis lu yàgg ci loxoom lool ak nguur dafa yàgg ci loxoom. moom Macky Sall Macky Sall man kaw ma ku xam Macky Sall boo bëggee dégg dëgg man du ma politique c'est mais damaa gis li nga xam ne moo am nga koy wax bu fekkee ne nag moom li wér te wóor mooy lu ko jege mhm. tawat dina am wax naa ko te ci jabaram lay doon soxnaam ne soxnaam na faju ji ay tànk jàppuy côtéem soxna Marème direct laa ko koy wax na dem faju ji na ñaanlu ji dañoo nekk ci kawam te bu ma am loon lu may seet damay joxe tur dama naan diw ak diw diw ak diw nanga kuy Ousmane Sonko ma baaxee ko lee bu bëggee jël réew mi na mos génnaat lu mu wax mu saf nit ñi sëñ bi teemaa yam fii ah, nit ñaa ngi may xaar ci biti de <laughs> xam naa ni nag jàpp nga lool <laughs> ah. te it nit ñaa ngi lay xaar uh-huh. waaye mu bëggoon ñu ñëw ci benn question bu daw uh-huh. mooy lan moo tax Mara moom mm-hmm. maara buy seet moom di jaar ci tuur yi mhm. maara bu ñu sàccee dara woo ko mu ne la diw ko jël waaw a ah di di seetal ni naan ko diw sàngam moo la liggéey wala mu ne la liggéey baa nga barab sàngam demal su luji ko waaw maara kat moo koy wax loolu loolu loolu ah, man damaa amee jinne première mooy ku amuti jinne mënoo xam lu nekk ci nit ki hmm. man sama maam day fanaanoo ki jinne jabaru jinne yi ku toog di ñaan danga doon doon ci ay soxna loolu ñëpp xam nañ ko ku dëkk man da gis samay jinne jamono ji nañu tey. loolu de amut ci réew man boo ma man man bu ma nee la jàkk man <laughs> man bu ma la jàkk xam yaay kan xam li na ci yow. na déjjët bërëb sàngam dindi ko nit dagg na billet ñaata yoon Europe ba Sénégal ngir ñëw ñun maa ngi koy nuyu ñoom Mamadou Diop suñu mbokki Thiès yooyu bi ñu ñëwee bis yu mag la ñu fi wooteel ay cant ak ñi nga xam ne ñu ngi ci dama ne waa ca Thiès dama ne mhm. ku yàlla narul dimbali waaw du ma la ñaanal te képp ku ñëw ci man sa yaakaar du tas tarfatal xay ni mënumaa ànd ak nag man ku yàkkamteeg ku ragal ndax samay mbir yàlla may xërtal ci nit rek man nga maa woo tey tey ma liggéeyal la tey tey mën naa laa dawloo fukki at du ma la liggéeyal waaye nag seet moom réew mi gaa yi si mënuñ kenn gaa yi mënuñoo seet ah waaw loolu di dëgg yi mënuñoo seet man maay dimbale nit ñi di leen seetal gars yi dañuy wax rek ku weex ak ku ñuul ku xees am nañu yàlla may nag man dëgg la dëgg la waaye dafay am dama gis yoo xam ne liggéey bi da ci am ñu ci dugg ñoo xam ne bokkuñu ci waaw loolu am na ndeysaan loolu gis nga ni mu amee nag ci sëriñ si mhm. ni la amee ci mécanicien yi am ci sëfoor si am si ñëpp journaliste yi ñëpp am na foo gis rek am na yàqkan mais sëriñ dafa weex donc dëgg la waaw ndax léeg-léeg nit dina opérer nit rek mhm. juum rek nit ka dee médecin la kenn ku ne li ngay liggéey nag fokk accident am dëgg la nañ waxante dëgg waaye nañ rafetal yëf yi mhm. ñu ni neen lañ boo gisee ñuy génn di wax dañoo bëgg a jàppale jaam yi dañoo bëgg a dimbalante ak nit ñi mhm. feeñal solution bi mhm. man Serigne Saliou woo ma dimbali mhm. sëñ bi bàyyil ñaan naa la rek ma yamale fii waxtaan bi di sant journaliste yëpp di leen gërëm yow di la sant di la gërëm waaw boo amee loo ñu laaj lu mujj rek ñu tënk ci waaw ñoo ngi lay sant di la gërëm di la jaajëfal te tamit di la jéggalu ndax xam naa ni jot gi mayu la ko waaye boobu ba nit ñi dañ ñoo sonal Serigne Mara Serigne Mara bëgg nañ koo gis waaw looloo tax ñu ñëw li ma gën a wax ji nag mooy dañi bis bu ma demee ba lii nekk ci man ma gis ni nekkatu ci presse bi yëpp ñu ñëw. Mhm. ma ni leen dara nekkatu fi. dëgg la. ndax loolu mooy loolu mooy loolu mooy li wér ndax xulil xaq walaw kaana murran mhm. euh, te te loolu dara gënu ko nekk ak dëgg euh, te li nga wax mooy li wér mooy Serigne Saliou moo ma dimbali mhm. waaw mooy loolu daal li ma ci jàngee mooy nit lu mu maîtriser wul waaw war waru cee yëngu. déedéet wala war na koo jàng kon. déedéet ba man ko soog ci soog ciy nekk. soog ndax loo nekkul taalibeem. doo doon doo doonub sëriñ. jërëjëf kon noo lay jaajëfal. jërëjëf yaa bu ko naa tamit nga ñëwoon ma ci jigéen ñi nga xam ne ñoo ngi ci kër yi te bëgg borom kër. waaw ma dégg ñu ne yor nga ci loo xam ni moom. Mm-hmm. boo ko laalee balaa balaa faar sa tànk xaw ma noo ko waxee. waaw ci ñu tëjee loolu. waaw ci ak say kàddu waaw ci li ñuy tëjee dama koy dëxañ ci ñaar. waaw aajo xam nga dafa yaatu. Mm-hmm. aajo mm-hmm. jigéen ju bëgg boroom kër ci la bokk jigéen juy sëy mënoo am doom mm-hmm. ku bëgg a seetlu mm-hmm. kuy dugg lu xalwatu mm-hmm. ku bëgg bëggi këyit ki nga xam ne da ngaa bëgg a avancé ci ubbeeku ci sa wàllum àdduna man ñooñu man ay problème yi ay bopp bu ay man yooyu taxumaa wax man problème yu mag yi laay lijjanti <laughs> yow dama koy bàyyee gone yi si gone yi ñu lijjanti ko man man lijjantiwuma yu man man man loolu mooy aajo ji jot amul te nit ñi ñu ngi ñuy xaar mooy moom moo tax ñu ngi sant ñëpp biir réew biti réew waa Touba yi du ma leen fàtte suñuy kilifa yi nekk foofu yëpp mhm. ak waa Ndakaaru Instagram bi Instagram bi waaw sama gaa yi ci Instagram bi ñoom dem ci Mara Niass mu Serigne Sall waaw waaw waaw Instagram bi waaw bu ñu demee officiel rek waaw Serigne Mara Niass officiel Serigne bi day génn di joxe ay ñaan yu ama am solo ndeysaan jërëjëf jërëjëf ñaanal la tawfiq ak taysir jërëjëf kon mbokk yi mu ngi noonu seen mhm. émission la woon ñu mhm. àndoon ceeg Serigne Mara Niass mu Serigne Saliou noo ngi jaajëfal ñëpp ñaanal ñëpp tawféex ak taysir mhm. ci barkeb Serigne Saliou asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf rahmaanu ya rahim rabbi ma yasrol asana xat fajaa bi jaay afdal liman lillahi xalaja حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملاح Bienvenue sur Salam Bienvenue sur Salam Vision.